laay voté sama genn wàllu kër di voté liberté damaa tuxul fële de Tiwaawoon Pël Namara mais dama leen fii laay voté doog a dem changé wu ma sama carte d'identité changé wu ma sama nee naa leen fii laa dëkk te damay voté pour yéen bëgg ngeen gagné. te ndey Binta mii du tey lañ toog mës na fii def benn meeting ñetti kaar laa ko indi bu defaat tey ko fii ci en face BM bi. képp ku doon sama personnel wala ci quartier liberté bi dama laa gàddu nga ñëw ñu jël ñetti kaar Ndiaga njaay tegal ko ko kon loolu du tey ñu ngi seen ginnaaw ni ngeen ñu jàppalee ñu dinañ leen ko jàppale bu neexee yàlla yal na leen yàlla jox mairie bi ngeen di xëccoo te mu jig leen poste de santé bi nag ah poste bi moom sama personnel bi damay dem de waaye bëgg naa ñu jàppale leen maire mos Sacré Cœur damay liggéey moom di liggéey ak moom liberté liberté daf maa jëlal maire moo ma su ngeen faloo yokk leen ñi ci des ngeen embauché leen ñu jël leen lool laa bëgg. bëgg naa maternité bëgg naa ñu defaraat post bi monsieur le maire gis na photo joxoon naa la ko bâtiment bi dafa toj jaxas jaxasoo dama bëgg nga def damay dem man dañ maa affecté léegi maire Mermoz maay chef de poste maire Mermoz ne dafa ma fii téye waaye nangoogu ma nee naa ko ma dem Fuuta ba ñëw seen taxawaay rafet nañu leen ci gërëm yow Zahra moom mënuma laa gërëm ndax démb la du tey recevoir nga ma présidence du benn yoon gàmm gu ma am seedo sa loxo ngi ci te délégation nga ma yónneel booleeg nit ñu dul jeex boo monsieur Ndiaye mi ngi dund eh, eh, eh, président Ndiaye yow mënuma laa fay te foo taxaw ma taxaw fa. moom moo waroon wax mais nee na naa ko waxal kon li may wax maa ngi koy wax ci turu l'honorable député maire. le ministre Zator Mbaye ñu leen di nuyu yéen ñëpp président Diaw may dalal sa xel ndax phrase bi nga njëkk wax moo ma gën a frappé ci sa wax nekk na préoccupation pour yow mais loolu dafa firndeel lu bari rekk parce da nga mettit lool nga ne malheureusement cérémonie bi dafa jeex ngeen ñëw waaye ñun dañ ne heureusement fekk nañ leen fi ndax ñii ñoo ñu indi woon xam nga jëf du coona du réer te boo amee yéene bu rafet sunu borom dalay won ne maa mën dalay fulal yéene bi seen yéene moo doon ñu mën a exprimer wu wax ak population waa Liberté ak waa Mermoz Sacré-Cœur ci programme bi nga xam ne le ministre maire Zator mbay dana ko def ndax dafa am yéene yu bëri pour poste de santé bi mais sunu borom may na ñu wax ko ak àdduna yëpp du yem Liberté rek wala mu yem Mermoz rek ndax ku gis lii nga xam ne danañ ko dégg fu ne ngeen xam ne yéen ñaar liggéey gi ngeen te war ngeen sant yàlla te bu ñu waxee liggéey ngeen waxuñu ko ci waxu yaama neex dem Thiongaan mi seedo la bokk commune de Nabadji Civol foofu la borom këram jóge mu nekk à quelques encablures de sama village tey Taïba Tafsir Moustapha Thiam ma xam ko bu baax Marie sage-femme d'État xam nga ku wax sage-femme d'État rek li nga muccal ci ay doomu aadama kenn xamul nu mu toll nu jëf jooju foog sunu borom fay leen ko nous vous félicitons nous te li ñu indi fii du ñëw ñëw politique dadi dañu nekk ci période campagne électorale kon boo gisee ñu àttana dagg suñu yitte yépp ñëw c'est parce que dañu bëgg màggal jëmmal sant leen ci action wu citoyenne yi nga xam ne def ngeen ko fii ci biir commune ndax suñuy doom yu feebar yéen a ci mën suñuy njaboot yu feebar yéen a ci mën waa football beeg population yéeg lépp lu leen dal yéen a ci mën te du guddi du bëccëg yendalu leen fanaanalu leen ndax li ñuy wax dañ ko bokk dund ak yéen muy Covid muy lu mënti doon yéen a ngi def lu ngeen mën ak lu ngeen mënul ci li nga xam ne mooy liggéey bi ngeen di def te liggéey bi ngeen di def nag jaamu yàlla la wér-gi-yaramu doomu aadama ku koy sàmm yaa ngi jaamu yàlla kon lii muntoon na ñàkk président Diaw ñii foog ñu sargal leen màggal leen moo tax président Zator ne ma nañ jug dem ñuy ñëw di leen seedeel nag ne dese na leen une dernière mission pare gu leen de dafa am une dernière mission tey ngeen retraite mais ñëpp xam nañ ne ku jël retraite rek mission bu bees commencé na mission bu bees bi commencé mooy foog ngeen dugg ci piir population yi wax leen ne yéene bii ñu am pour poste de santé bi foog ñu fal la ministre Zator Mbaye ndax fas yéene nañ ko réhabilité fas yéene nañ leen accompagner te dañu nekk di waxtaan ak ay partenaires pour la maternité loolu benn ponk la beneen ponk bi mooy dañu fas yéene def intercommunalité entre Liberté ak Jëppal kon li ñu namm fii dafa bari loolu mooy benn ponk bi nga xam ne dafa war a tax ñu fal la ministre Zator mbay mais ñaareelu ponk bi mooy Zator dafa nekk ci cabinet président Macky Sall nekk fa ministre conseil Ndeye Binta Gassama nekk ci cabinet président Macky Sall nekk fa ministre conseil kon su ngeen amee ñaari membre yoo xam ne dañu nekk ci cabinet président. yow damay wax ci côté Mermoz Sacré-Cœur rek <laughs> ñaari membre yoo xam ne dañuy dem di wuti di indi ci biir commune bi dafa jot ñun population yi ñu bàyyi di fal ñoo xam ne buñ leen joxee collectivité teritorial yi seen xalaat bu njëkk mooy xeexee ko dañu sonn ci ñuy xeexee suñuy collectivité teritorial ndax état bi li muy def jagleel ko population yi mi ngi ko jaarale ci ay gox-goxaat yu ñuy wax mairie mbaa mu doon ville mbaa mu doon département te yàlla dogal na fii nag ci commune bi ñu nekk la fa état yi di jaarale ci neuf domaines de compétence te santé bokk ci état bi am na fi ay ndaw yoo xam ne seen preuve dañ ko wane ci biir commune bi subaak ngoon guddeeg bëccëg ñi ngi dawal population ñu doon nag ay doomu gox bi juddoo fi màggee fi yaroo fi bëggal gox bi ndam te ndam biñ ko bëggal faw gox bi jàpp ci moo tax madame Thiongane li may wax ni du waxu politik de madame sage li may wax ni du waxu politique da am mission di faj nit ñi mission boobu na ngeen ko yeggale ci population yi pour ñu téye seeni wuti ndax les défis sont majeurs kon président ñu ngi leen di seedeel ne président jaw président comité de santé c'est ça nga xam ne li muy def ci sport bi li muy def ci gox bi li muy def de manière générale pour la jeunesse ñu ñëpp sedd nañ ko firnde nañ ko mu nekk quelqu'un d'engagé ki figure nag sur la liste de Sicap Liberté xaw ma ndax wax na leen comme déet ngi ci liste bi. mais parce que les populations sont engagées à avoir un mieux-être. Ah, monsieur le ministre aussi joxe na participation wam ci activité bi xam nga moom rek moo mën a am li yëkkati ma man ministre bi ma koy defaral. c'est parce que dama xam taxawaayam ci gox bi fas ne ko jàppale nag pour mu jël mairie Mermoz Sacré-Cœur population yi ñoo dayal ci fitna. population yi ñoo doyal ci xoqatal population yi li ñu bëgg mooy ku leen liggéeyal ku leen fi nekkal kon bu ñu gisee ay doomu gox bi yoo xam ne pare nañ pour def loolu ñëpp ci war a jàpp kon ñu ngi demandé aussi ngeen jàpp ci ndax liggéey bi ñoo ko bokk li si des nag damay bàyyi le ministre Zator mu tëj parce que du mën a ñàkk donte ñaari kàddu la tëjal wax ji kon sax may wax parce que wax na lépp moom fii ci jataay bi mooy sama kilifa ndax ministre la ci gouvernement bi donc taxawaayam taxawaayu président Macky Sall la enveloppe bii nag dugal na ci loxoom bu baax a baax a baax li ëpp xaaj moo ko def cinq cent mille la joxe pour ñu dimbali leen jàppale leen feetal leen li ngeen li ngeen laajoon sax gënoon naa tuuti waaye bañ ci waxee ñu ne déedéet nañ ko yokk kon nag euh, loolu yëpp ça montre le cœur ñu laaj laaju xel. xel waaw parce que jaw dafa ma ne jamono bi metti na wàññi leen ñu ne non non fii jar na ko mais vraiment fi ma bëgg tëjee mooy gërëm ko moom sant ko ndax euh, am na oyof am na ouverture d'esprit ku jara dénk maire ngi nii ndax il est proche de la population yéwén na ba pare xaritu jigéen ñi la ndax moo gën ci leket yi moo gën ci tontine yi ba pare moo gën ci mbootaay yi ba xaritu ndaw ñi teg ci donc dama jàpp ne jigéen ñi dañu war a jël combat wu sikap xaritu waa Fuuta mi ngi noonu waaw loolu moom voilà vraiment di ko jàppale guddi ak bëccëg donc vraiment dama jàpp ne ku ku jara jàppale la li mu wax nii muy euh, intercommunalité fii entre Mermoz ak Sicap Liberté mën nañ ko signer fii te jàpp ne noonu lay taxawee li ngeen bëgg incha allah ci poste bi noonu lay amee euh, ba pare nag boo ngeen gisee délégation bii ñu indi fii ngeen xam ne mbir mi bés bi tey lu ñu ñoroon la moo tax ñu def ko donc maa ngi lay gërëm madame la ministre di gërëm ñëpp ñi fi taw yen ñi dem retraite yow nee naa la mën a koo dem parce que foog nga xaar ba ma toog ba pare waaw yéen ñiy dem retrait yal na leen yàlla may une retraite paisible ngeen dund ko ci jàmm ak seen njaboot lépp lu ngeen def ci seen vie active yàlla na leen ko yàlla fay ñi nga xam ne aussi ñoo fi desandi ngeen jàppe ñi exemple parce que ku nekk fenn vingt ans c'est pas yaafus moo la fa tey mm. moom mii jaar nañ fu bëri maak moom. Ah. léegoo léeg sax daan nañ xuróoyante laalante yu saf mais vraiment gis naa ne ku sawar ci liggéeyam la. donc yal na leen yàlla fay lépp lu ngeen fi def. may nuyu aussi colistière bi nga xam ne mooy Sicap Liberté Ndeye Maguette suma rek par contre j'ai vu que dans ta même de très belles dames hein, qui <laughs> maa ngi lay nuyu. sama tonton Adi Wade également maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp madame l'honorable député Lucie Cissé aussi mi ngi fi toog ak ñëpp rek DC et tout le monde merci beaucoup ñu ngi leen di sama colistière oui Kamala Harris Abi Ndaw elle est donc mi ngi mi ngi noonu vraiment merci merci merci encore pour tout madame la ministre gërëm naa la sant la oui oui vraiment non doyen moom saa yu taxawee day taaral jataay bi wadd gi mu sant rek a ko yàq voilà merci beaucoup merci